asalaamaaleykum waa Mouhalim Sport TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi waaye laata loolee kuy gën ci page bi te abonné goo dañu lay ñaan nga abonné te bés cloche de notification bi ngir kat bépp vidéo bu ñu dugal yaay doon ki ci njëkk a jot waaye ngeen di commentaire di aimer loolee tamit dina dooleel chaîne bi nañu ko daa waxee rek nu leen di jaajëfal bu baax a baax di jégalu fan yi ci ñàkk a def vidéo yi newoon ci yitte rek la bu leen fàttee nag di sem vidéo yi te di ko partagé ngir kat loolu mooy dooleel chaîne bi jërë ngeen jëf xibaar yi ci doomu Sénégal bii di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng lañu koy doore moom nag saison bi am na ci 15 bi ci foofu équipe nga xamante ni moom lay football équipe boobee di Marseille moom ki nga xamante ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom na fan yee doon ngeen dégg ci moom supporter yi daa wax naan moom ki nga xamante ci Cheikh Ahmadou Bamba ji daa ko critiqué ci yenn mbir waaye problème yi dafa mel ni kat ñu ngay ko waaju juboo ci gone Sénégal googee di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom nag jamono ji ma ngay bu baax a baax foofee ca biir Marseille kon nag nanu ko ñaanal saison 2022 bi jàpp 2023 baax moom ki nga xamante ci ni moo di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ca équipe ba ba nga xamante ci ni moo di Marseille moom nag waa bëgg nañu ko trop ay poète ak ak Pape Alassane nga xamante ci ni ñoo bokk benn club moom nag boo waxoon naa nangu wutu jóge Marseille waaye it bu dee dafay jóge it club bu mag a lay dem ndax kat moom kat footballeur la te it dafa bëgg dégg boppam ci football dañu ñëw ci ki nga xamante ci ni moo di Mourinho Mourinho moom mii nag tàggat na mooy tàggat waa AS Roma moo di saison bële di ñëw mu def saison bu baax moom ki nga xamante ci ne moo di na daal loola nag li tax mu wax ko moo di xam ngeen ne moom nag dafa bëgg saison bi la di ñëw daal mu def saison bu baax a baax a baax def saison bu rafet ya moom ki nga xamante ci ni moo di Mourinho moom naka bëgg na naka fan yële di ñëw def ab conférence de wax ci United loolu nag danañu leen ko toppal bu ñu ci course bi nga xamante ci ni moo di Mourinho dañu ñëw ci Kylian Mbappé moom nag mën nañu ne sax jege na toram nag pour na contrat am ak waa PSG li ko waral nag moo di xam ngeen ne yaayam doon na waxtaan ak waa PSG waaye jubali woon na ca Qatar waaye it li nga xamante ci ni daal moo gën a wér moo di. moom gone gi daal mën nañu ne xaw na juboo xaw na juboo rek ak waa ñi nga xamante ne ñoo di waa PSG ngir dal di yokk contrat am ñaari at moom ki nga xamante ne moo di Kylian Mbappé yooyee xibaar naka danañu leen ko toppalaat ba xam loola nag dina ko def wala du waaye daal am nañu yaakaar ne dina yokk contrat am ñaari at jàpp 2022 2023 ba ci jeexitalu 2024 moom ki nga xamante ne moo di Kylian Mbappé moom nag xam ngeen ne yaayam bëggutoon mu jóge PSG ndax ki nga xamante ne sax moo di Emmanuel Macron di président bu France ba sax waxoon na ci ay dossier yam kon xam ngeen ne Kylian Mbappé moom du joueur bu ndaw te it ku ne ne du joueur bu ndaw kon nag ko kii di Kylian Mbappé waa Real Madrid bëggoon nañu ko ñoom nag bëggoon mu ñëw gratuit rek ñu gaaw rëddal ko contrat bu sori lu ci mel ne juróomi at waaye loolu ne Real bu ñu jógee ci Kylian Mbappé di ñëw ci kooku di Tchouaméni moom Tchouaméni nag jamono ji may wax ak yéen bu ñu ko ci benn foot moo nañu xamal ne Liverpool sori na ci dossier yi waaye daal mën nañu ne club bi ci gën a sori moo di Real Madrid ak waa Liverpool ñoom ñaar nag daal mën nañu ne kenn mën na ko ci nangoo foofu ca biir ko ndax kat li ñuy laaj gone gi bëgg na dem ci Real Madrid waaye it bañu Liverpool te it ñoom waa Liverpool nangu nañoo génne xaalis bi Monaco di laaj. waa Real de Madrid dangu nañu ko génne kon nag gone gi mën nañu ne yeneen club yi ko doon laaj jege wut pour dem fa fenn ne moo di Real de Madrid mbaa Liverpool ki nga xamante ci ne moo di Tchouaméni moom nag def football foofee ci biir Monaco waaye it day doxal bu baax a baax xam ngeen ne day dugal bi yu bëree bëri tey day def ay passes décisives kon nag moo tax it waa Real de Madrid xam ne gone gi ak ëllëg am na football am na ci moom yaakaar ëllëg waaye Liverpool xam loola moo tax ñu dal di koy bëgg récupérer indi ko fa ci biir Liverpool mbaa Real muy doxal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bëri ñoo ñuy xamal ne moom bu ko waxtaanee ba tey jii accord ba amoon digganteem ak FC Barcelone ba tey ji ma ma nga fa maanaam wax ji ñu waxante woon moom Robert Lewandowski a baax nee na sax nangu na wàññi contrat ngir dal di jubali ci biir FC waaye ñoom ñëpp daal bëgg-bëggam seen bëgg-bëgg wala seen bëgg-bëgg moo di ñu dal di dem foofa ci biir FC Barcelone waaye ñoom waa Bayern ñoo nanguwut a bàyyi gone gi li ñu bëgg daal moo di yokkal contrat waaye xam ngeen ne bu dee moom ku Lewandowski noppigul pour yokk contrat kon nag bu saison jeexee daal mën naa dem mën na daam bu contrat bi jeexee daal dem ci ne moom chaque saison muy dugal ay 40 but moom mi nga nag attaquant bu mag a mag la kon nag mën nañu ni Robert Lewandowski nag moom jamono ji nag Barcelone noppeetul pour daal di toog ci mbir yi ma ngi ca nag bu baax ba waaye duggeewu ca ak doole maanaam néew daal ne da def ay 100 millions wala muy tey def millions yu bëri li mu bëgg moo di def nànk-nànk ba jot ci gone gi mën na koo jotee sax gratuite bu ñu defee nànk rek waaye it li ki nga xamante ci dama di Lewandowski moom nee na nangu na wàññi salaire am a dem ci FC Barcelone waaye it nangu na waa FC Barcelone yokkal ko ñetti at ñoom waa Barcelone nee nañu bu ñëwee danañu ko yokkal contrat am ñetti at moom ki nga xamante ci ne moo di Robert Lewandowski bu kii nga xamante ci ni moo di Robert Lewandowski dañuy jubale ci kàddu yoo xamante ci ni moom dañuy Alves moo ko yëkkati woon ci Karim Benzema nee na daal bëgg naa Karim na yaakaar ne moom mooy jël ballon d'or bi te it gëm bii moom nar a àgg ci yoo xamante ne dana ko def ci benn saison loola kat musta am mi nga xamante ci moo di Karim Moussa ba mu dalee ba léegi mi ngi doogal saison bu mel nii ci ab carrière moom Dani Alves nag nee na gëm na ne moom ki nga xamante ci ne moo di Karim Moussa Benzema ballon d'or moom moo ko moom waxuñ keneen ku dul moom waaye it la daa wax rek la wax ballon d'or moom ki moom ki nga xamante ci ne moo di dana alfasam daal nee na na torop kay Moussa Sama xam ne kan mi ngi doxal bu baax a baax fu fekk bi Real de Madrid ndax xam nga ne Real Madrid bu demee ba àgg final Ligue des Champions war a dajeeg Liverpool le 28 mai moom ki nga xamante ci ne moo di Moussa Sama génn ci ndax ba ñu dajeeg Inter moo leen ci génne ba nu dajeeg Paris moo leen Chelsea moo leen ci génne waaye rawatina match bi nga xamante ci ni mooy match bu rëy ba doon dox ci Real Madrid ak Manchester City moom ki nga xamante ci ni moo di Karim Moustapha Benzema moo leen ci génne ñoom ñi nga xamante ci ni ñoo di waa Real Madrid kon nag ba torop moom ak ñanjo Sadio Mané daal ñooy ponkal yi nga xam ne ñoo ko xëccoo jamono ji Gareth Bale moom nag coupe yu bari jëlee na ko fa ci Real de Madrid mais 2019 2020 2021 jëlee woo ko li ko war a moo ne dafa jigwante Real jubale woon ca Tottenham mais jamono jëlaat na fa ab trophée maanaam trophée bi nga xamante ni moo di championnat Liga des Champions ba jël na ko ci 2022 gi waaye dem final ci li nga xamante ne moo di Ligue des Champions kon nag moom jël na fa ab coupe muy championnat Liga Santander ba moom nag xam ngeen ne yaa ngay démarré di ndax kat waa Real de Madrid a bàyyi mu jug ndax waxoon nañ ko sax nga moo toog wala contrat ba jeexagul ngir mu waaye waa Real Madrid moom noppuñu pour xatimal ko contrat moom ki ne moo di Gareth Bale mais nag Antonio Conte na ki nga moo di Gareth Bale te moom Gareth Bale it ba ñu ko kon nag waxtaan wa daal mën ma comme Gareth Bale bu nu jógee ci ki nga xamante ci ni moo di Gareth Bale moom Ancelotti ci nag démb joxe na ab annonce xam ngeen ne match bi war a dox ci diggante tey jii mën nañu ne sax léegi tey mu commencé mbaa buy duwee buy dugg ci YouTube dina fekk mu commencé Ancelotti nee na suba daal wala tey jii waa moom du daal di titulaire ca gaaxaje ba kon nag seen deuxième gardien ba mooy daal di góolu kon nag yéen ñi nga xamante ni yéen na mu ko waa tey ji man ngeen koo bañ a gis ci match bi dox ci Atlético Madrid bu dee li nga xamante ci ni moom la Ancelotti wax jugu ca ba tey ji dañuy nga xamante ci ni moo di Ancelotti moom nag moo doon wax nee na daal dafa bëgg football lool te it gëm boppam te moom dafa naw boppam waaye it naw sa bopp moom kenn du ko def waaye moom dafa naw boppam te it gëm boppam te it nee na lépp loo xamante ne équipe da koy jël moom mën na koo jël moom nee na romb na sax jël li nga xamante ne moo di ligue des champions yeneen coupe bépp coupe bépp coupe ba coupe du monde sax moom ki nga xamante ne moo di Ancelotti nee na bëgg na ko jël waaye it moom mii daal xam ngeen ne ma ngay jëli coupe yu baax a baax foofu ci biir Real de Madrid moom nag lancé na benn message nee na noppi nañu ñu ba Real Madrid pour daldi jaay ki nga xamante ne moo di Casemiro 50 millions d'euros wala 53 jàpp 55 ba 60 ku ko andi di nga am Casemiro xamuñ nag benn club ba koy jënd moom ki nga xamante ne moo di Casemiro waaye moom nag Ancelotti daal nee gëm na ne moom lépp lu. nit di jël wala lépp la nit man man na ko tey nee na gëm na ne da koy jël kon nag moom noppeegul pour dal di bàyyi li nga xamante ni moo di course waaye xam ngeen ne nag day jóge foofu ci Real Madrid waxoon na ne sax day jeexal carrière li jëm ci wàllum football waaye it moo yëkkatiwaat yooyu kaddu tey nee na gëm na ne football lépp mën na ko ci am te it gëm nañu njariñam lépp xaaj daa nga ci football ndax moom xam ngeen ne lépp loo xamante ni am na ko rek ci football la ko amee moom ki nga xamante ni moo di Ancelotti ndax mooy coach bi jël trois juróomi championnat yëpp moom Ronald Araujo moo doon yëkkati ay kàddu jëm ci FC na Barcelone club bu mag a mag la te it Barcelone am na ay xale yu ndaw waaye it xale yu mën a mën la ñuy def waaye ji mu rek am ay xale dafa am ay mag yu gëm seen bopp waaye it mag yoo xamante ne ay mag la ba pare xam la ñuy def mag yooyu nag mën nañu caataamu juróom ba juróom benn ndax bu ñu nee Piqué benn ngoog Busquets dane Alves jox di Alaba ak yeneen sœur yu mag a yoo xamante ne ña nga fa ci biir Barcelone moom daal nee na gëm na ne saison bi 2022 jàpp 2023 ba 2024 gëm na ne Barcelone mën na ci jël ay trophée yu bëree bëri a dem ci gëm na ne Barcelone moom am na yaakaar ne sax Barcelone dina ko jëlaate yi ci saison bëri di ñëw moom nag nee na xamoon na ne dina jokk contrat am gëmoon na ne Barcelone googu fa lay mujjee des te it dana defaat lu tolloog juróomi at ndax xam ngeen ne 2026 sore na torop ndax boo ne ndax boo ne 2023 2024 2025 2026 loolu ñëwagut kon nag moom bëgg na Barcelone te it ma ngay wane boppam ak mbëggeelam ci FC Barcelone bu ñu jugee ci ki nga xamante ne moo di Ronald Araújo dañu ñëw ci Thomas Tuchel moom nag problème yaa ngay démarré lu la gars yi di wax ndax juróomi match yi ma tegale yëpp maanaam defu ci lu baax ndax bu ko Arsenal 4-2 la ko la ko door moom ak Chelsea 1-1 la moom daal benn victoire daal la fi am ci moom daal ki nga xamante ne moo di Thomas Tuchel moom problème ya ma bu baax a baax ndax kat xam ngeen ne tegalu juróomi match kat ndam ya bëriwul wala benn ndam rek nga ci am ma ngay démarrer bu baax baax ku njëkk a torxalee nag mooy Real de Madrid ba mu fa jaaree ba tey daal dafa mel ni Chelsea moom dafa xaw a nar mel ndax Edouard Mendy moom ma ngay encaissé ay bii lool sax kon nag nanu gën a ñaanal waa Chelsea ndax sunu doom ma nga fa wala ñaari doomu Sénégal ndax Malang Sarr doomu Sénégal la ak ki nga xamante ci ni moo di Edouard Mendy kon nag ñoom Boy Chelsea jamono ji nag ñi ngi ci guutaanga gu métti métti ñoom kat seen club ba ji muy dundee jamono ji jéggi na dayo tey te ñoom kat jamono ji gën nañoo am ndam lu rëy rëy ndax ñoom dañu daa door 4-0 ba jàpp sax 5 ci bi saison bi door commencé mais jamono ji ñoom Ligue des Champions sax bu ñu góorgóorlu woon mën nañoo bañ a ñëw déwén kon nag ñum waa si nañu leen ñaanal ñu gën a am fulla tey gën a taxaw bu ñu jógee ci ki nga xamante ci ni moo di Thomas Tuchel ak waa Chelsea dana ñëw ci ki nga xamante ci ni moo di Ansu Fati moom nag blessé woon waaye fan yii ñëwaat na waaye it duggaat démb match bi doon ndox ci diggante Barcelone ak Real Betis waaye daanaka dafa dugg rek dal di am benn ab bit kon nag moom

lan moom ki nga xamante ci ni moo di Ansu Fati bu nu jógee ci joueur boobee nga xamante ci ni moo di Ansu Fati ba tey ji sax beneen Ansu Fati jiraan nañ ko Ansu Fati moom bëgg-bëgg nag mooy am place ndax moo ko Ferran Torres xam na trop Real Madrid match bi muy am war ci jàkkaarlu ak Atlético Madrid ñooñu la koo fekk kon nag ki nga xamante ne moo di Kroos ma nga fa Modric si Casemiro Valverde waaye Lucas Vázquez ma nga ca gis nañ ca it Camavinga Benzema ma nga ca Asensio ma nga fa Jovic si Vinicius Rodrigo waaye Mariano gis nañu ko ko waa sax moom ma nga fa moom it jotoon nañ ci moom xibaar Carvajal Militao waaye ki nga xamante ci ni moo di Nacho ak feer la mendy kon nag waa Real de Madrid ñoom ñoo war a jàkkaarloo ak Atlético Atlético Madrid nag du équipe bu ndaw kon nag tey jii match bu métti da ngeen ko xaar Benzema tey jii dana wane boppam rawatina jur Real Madrid yëpp ngir kat mën a jëmbat fu la wane na ñoom ay gone yu man lan waaye gone yu mën a man la ñuy def leen fa fee ca biir bi Bernabéu kon nag ñoom waa Real de Madrid ak seeni gone nañu gën a wane fulla ba tey ji dañuy des ci xibaar bi nga xamante ci ni moom lañu jot ci Robert nag bëgg na sacrifice ay mbiram dal di gaaw kat jubali foofee ca biir FC Barcelone xam ngeen ne FC Barcelone jamono jii mën nañoo saison bële di ñëw dina def saison bu rëy ndax su yore fa bëgg a dem même Luis Suarez sax bëgg naa dem foofee ca biir FC Barcelone ba jotoon na Juan Laporta nag li gën a wér moo di moom nag xam ngeen ne Juan Laporta li ma ko wax daal mooy de mën nañu xaar ne gën bu ñu jotu ci Robert Lewandowski ñu a bëgg nag tey it ñoom tey gone gi leen mooy Robert Lewandowski ndax attaquant mi lu ni moom kuy dugal ab saison 40 bit kenn du yow kon sama gars yi jërë ngeen jëf fii la ñu yemale xibaar yi ba beneen yoon ngeen jëf